gannaaw bu nu sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jëggal di ndokkeel jullit yépp ci guddi gi nga xam ne ci lañu bàyyi ko doon ci yeesalaat suñu cofeel ak suñu bëgg ak suñu fas yéene topp sallallahu alayhi wa sallam ak lu mën a jar ak lu mën a jar nag di ndokkeel nag koo xam ne bu ko lislaam amutoon ci ji jamono ku nekk ci biir lislaam foo toll da ngay simboo say rongoñ muy koo xam ne réew mu mu dëkk ak noonu fi nu dëkk ab diggante la waaye loolu tekkiwut ne mooy ab sore ak sore lañu bokk fu ñu toll ña ngi koy dund muy pas-pas ñi koy wooye Rajab Tayyip Erdogan kooku bu ko lislaam amutoon ci jamono ji ñu toll jar na wuti ko ak lu mën a jar la mu wax nag ca kam ko wax ci moom ñun ñëpp ànd nañ ca ak moom nangu ko ne ko ñëpp ñaanal suñu boroom defar mbiram fii ak fanu jëm ndax dañoo wax ne kenn ku nekk la muy liggéeyee ca la mën a defe lu baax waaye daa mel ne ba muy wut yor am réew liggéeyee lislaam danga ko taxoon a jóg yàlla na ko yàlla fay ña ca toppit kenn ku ci nekk jëfandikoo nam ca jëfandikoo wax lam ca wax te jëfe ko ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla fay waaye kañ doon joxañ nag di wax ca moom la ko tàmbalee kere bañ ko ba mu ko waxee ba ba muy dugg sawara ëllëg di fa dëkk yàlla nay torox ba faw moo képp ku ànd ak moom bopp pas-pas mu mel ne yàlla subhanahu wa taala doon gim doon kenn xereñe gim xereñe lu nekk xam gim xam lu ne nii mu doxale ak nun ci kaw suuf fis na ci lool muy bind lim bind lépp ba noppi tànn ca tànn lu jafe la adduna nag jafe-jafe tànn lañ am kan la ñuy tànn bokku suñu borom moom moom lépp moom moom fépp moom ñëpp waaye lu ci nekk muy ñëpp ak fépp ak lépp fu ci nekk tànn na ca foo xam ne daf koo joxañ ne moo ko gënal fa ca des donte moom moom lépp feeñ na ci ay barab am na barab yoo xam ne ñoom la yàlla tànn ñu kawee ko seeni moroom am na sax lu dul ay barab waaye ay yëf la rek yoo xam ne dañ koy tudd waaye neexuta laal loolee it am na luñ ko tànn te moo bind lépp loola kawee ko ay moroomam ndax yàllaa ko tànn tànn waaye am na ci nit ñi ak ci jamono yi am na jamono yoo xam ne ñoo gën seeni moroom mooy waxtu yi ak saa yi ba ci bés yi ak at yi bu dee at yi at yi gën seeni moroom mooy at yi nga xam ne ñoo gën a jege dundug yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ba muy agsi si ñun ñun ñooy gën ay at ñooy ñëw téeméeri at ca kanam ndax ñoo leen gën a jege at yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la tànn ay malaayika yu ko jege malaayika yëpp mu leen bind waaye am na ñu ko gën a jege nag ñoo xam ne ci pas-pas day bokk da cay bokk nga gëm seenuk am gëmaale ñi ko des ñëpp waaye daf ko wut ci yonent yi tamit ci nit ñi la tànn ci biir nit ñi la tànn ay yonent ñoom ñëpp ñoo bokk mel ne maam waaye da caa tànn tànn ca tànnaat ca tànnaat ca tànn ca ba lim seenub lim ci alquranul karim ñu ne ñaar fukk ak juróom ñu ne benn ñu ne ñeent waaye seen tuddaal mi ngi ci alquran mu tànnaat ca juróom ci ñaar fukk yooyu ak ñeent juróom juróom benn tànnaat ca koo xam ne nag mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ña doon ñëw jiitu ko dañ ko doon waajal di ko xàllal yoon bi ku ne xam na ne ci suñ niti àdduna bala moo agsi ci barab bañ koy néggandiku da nga dégg ay dër dër yoo xam ne da ngay defee ni moom te fekk du moom dañ yor dara ji ko mat a sëkk ba nga defee ne kooka mooy kañ doon nekk te fekk du moom bu wàccee da nga xam ne du moom waaye moom ba mu agsee xam nañ ne moom moo tax suñu borom ne allahu alamu xaysu yajaalu risalata xeeb ko du te yàllaa ko tànn ñàkk koo teg fenn du te yàllaa ko tànn nam ko tànn ci biir tànneef ya sallallahu alayhi wa sallam waaye nag moo ko wax ne ci ñépp lañ la yónni annaas wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas koo xam ne bataaxal bi agsi na ci yow li nga mën a def mucc ëllëg mooy nga nangu ku mu agsi ci yow nga nangu ko xam ko xel teg taxaw ne suñu boroom a ngi lay nekk te xam ne doo ko rëcc yàlla na yàlla musal ca loola newoon na ko it dañ la yónni fii ci kaw suuf si nga doon seede bu ëllëgee ci ne kii déggu déggaloon na ma ak kii déggalu ma woon seedeloo ga ko yàlla seedeloo tekki woon yàlla daa xamul waaye ab atte daa laaj loolu ana ñu ko fekke woon inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadira ba noppi lii ngay wax lay yi mu àndal ku amum xel dana xam ne du nit ku taxaw di wax kese kese kese rek wa daayan ilallahi bi idni wa sirajan munira làmp bu leer naññ boo xam ne fu mu jëm ñu tàggoo ko lëndam waaye nag danañu la wax lu nekk da nga dégg lu ne waaye fala tuti alkaafirina wa daa adahum danañu la teg lu nekk xam nga ci dara lii ñëw nga gis ko la sa kanam a koy ëpp fuuf kon ab julit amul benn sañ-sañ di tiit wala muy jàq ci loo xam ne dañu ko teg ci derab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ba muy dund di jox dem ak dikk dañ daan jaar ci jëmmam ji am na fa alxuraan di waxe ne yàlla yàgg naa toog di xool ci waxin ci ñun liñ xam ñuy siq ak waayam mu ne cell waaye léeg-léeg mu jóg bañ xam ne kii du ko ànd moom kenn ni ngi wax Seydina Isa wa makaru wa makar allah makkar sax dafa niroog ki ñuy wax wa makaru wa makar allah wa makar allah wallahu xayrul makirin wa makaru wa makar allah wallahu xayrul makirin Seydina Isa waaye nee na woon yonent bi ci lu leer loo xam ne maakir mii fësal na ko wa id yamkuru bika alladina kafaru li yusbituuka mooy ñu tëj la rab dootoo génn fi nga dëkk wala ñu yàq sa der ba kenn dut la bëgg a xool wala ñu jéem laa rey wala ñu génn la dëkk bi nga dëkk wa id yamkuru bika alladina kafaru li yusbituuka melal la ci melokaan woo xam ne sore na lool ak waa nga mel aw yaqtuluuk wala ñu jéem laa rey fexe laa rey makk wala ñu génn la dëkk bi wala ñu génn la réew mi loolu lépp yamkuruun wa yamkurullah pexe muñ tëral yàlla xam na ko te wallahu xayrul makirin moo tax moom kenn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la wax ne ku jaar fi mu jaarlu dañ lay ñee waaye doo ñee kenn waaye ku jaarut fa mu jaarlu nag doo ca maandoo sax yàlla mën na la attu ci mu neem ëllëg ndax da ngaa maan woon waaye soo ko jéemee jaar sàkk ci ab deram ci melokaanam ci ab bataaxalam bu mu indil doomu aadama yi kooka kenn du ko gis mbaaw ndax du ko tal fal yaxdar alladina yuxaalifuuna an amrihi mooy na ñëpp dugg si ci lislaam fal yaxdar an tusibahum fitna fitna nag bokk yi weesugut ndaw loo xam ne da ngay soog a dugg àdduna bu doon ci suñum réew dañ naa ko àdduna ki sa kanam góor-góor loolu nu mu def maanaam ñàkk a xereñ ci tànn moo tax fitna lay àndal ba ba muy dem sawara ndaw loo xam ne amatul ci boppam yaakaar amatul yaakaar maanaam kàddu gi mu am di ko waxe adduna bi di ko déglu léegi tey mu ñàkk ko ba mu ko yoreegul kenn xamagu ko woon te kañ lay jeex xames na ko mën naa faatu nag ci diggante bi mën naa dee ci diggante bi ñooñu dañuy dee waaye wóor na ko ni du weesu nangami at moom ci kàddu gii mu yore jooju fitna mënut a weesu fitna te amatul yaakaar li ma ne dafa juum ci tànn bokk yi ñun ki ñu tànnal mu yàlla ko yonentam moom la Cheikhul Xadim waxoon ne alxayru fi maxtaara wal muxtaar laa fi lazi nufusukum taxta adduna bépp dañoo am jafe-jafe ci tànn buñ xooloon ci lislaam fitna du dal ndaw loo xam ne day soog a dugg adduna képp addunaam yam fa mu ngi dëkki xalaat ba faatu ba dee dee dem sawara mën na cee junju ñaar yu dend ak li may wax nii li ñuy waxtaanee li ñuy fàttalante bokk yi lislaam buy tànn danaan yàlla yow yaa xam lépp yaa xam ñépp lii ñu soxla kenn li ñuy jëkk tànn wala aw nit ñoo xam ne kenn ku nekk nañ koy tànne yaa nuy wax nu muy demee mu ne déglul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax leen ni ñuy tànne maa ngi jëkk ci ni ñuy tànne lu ñuy wax imaam bu fekkee tànne nañ ko nañ ko war a tànne waxuñu nag imaam joo xam ne sañ-sañ rek moo ko fa teg wala kat wala xay na mu man ko wala war na koo doon déedéet waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañuy déglu mu wax ñu ni ñuy tànne imaam ji nga xam ne moom la yàlla xam ci moom la lislaam xam ci pal tànn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na Abu Mas'ud moo ko nettali ya ummul qawma aqra'uhum li kitaabillah ki ñuy tànn mu war a doon imaam mooy koo xam ne moo dàq jàng alxuraan ñëpp ku mën alxuraan daal wattu ko mën koo bind mën koo tari fu logg-loggal am mu xam ko su fekkee mbooloo ma fa nekk ñuy tànn ci seen biir ñëpp ko mën a ni moom ñu teg boobu jéegu demaat ci beneen jéegu fa in kaanu fi lqiraati sawaan fa aalamuhum bi sunnati su boobaa ñu teg fa noonee du tax ñu bàyyi fa alxuraan de waaye jéegu boobu ñu baree ko man dañuy jàllaat ndax dañuy tànn ka ca gën a dégg sunna gën caa teg tànkam su ca ñëpp tolloo am nattuwaay dañ ko fay teg ne waaw leen góor wéy leen ci lii mooy yoon wi nañ seetaat beneen jéego ba xam ku koy ku koy jàll fa in kaanu fi sunnati sawaan fa aqdimuhum hijra ca jamono yooya buñ bokkee nekk Madina nañ xool ki jëkk a gàddaay su fekkee ñañu tànn ñëpp maasee ndoo ga ñoo ñoo bokk benn bis bu buñ ñëwee wala ay bis buñ ñëwee ñoo yam ci mokkal alxuraan yam ci dégg sunna gàddaayaandoo bokk bokk benn ay bis bi wala ñu bokk benn atu bu leen bis bu leen indi wala xaafila bu leen indi ñu ne nañ teg boobu jéegu demaat ci beneen kon tànn yombul waaye yàlla mi xam lépp mooy moo mën a tànn moo tànn mooy tànnloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ana kuy jiitu fa in kaanu fi lhijrati sawaan fa aqdamuhum silman ñu xool ba xam ku jëkk a dugg ci lislaam am na beneen riwaaya buy wax ne kaca mag mag nag lu ci am solo la ci ak tànn yooyu yépp suñ fa maasee ku nekk sa góorgóorlu bopp mën na laa taxa mokkal alxuraan mën laa tax xam suñu tekki sa tànk mën na laa taxa gàddaay sa moyen bopp moyen ay pexe ak sa jëkk dugg ci lislaam yooyu yëpp nit ki mën na koo sabablu rawee ko ay moroomam ci góorgóorlu boppam waaye nag la tax ñu mujj ay at mooy ay at kenn mënu koo may boppam ay at kenn mënu koo may boppam loolu nag duñ ko weesu moo tax ay at am solo ci tànn soo xoolee xale bu ndaw boo xam ne génn gut ci aw xott ñu tànn ko ci nuñ ko tànne ñoo ko xam waaye du nattukaayab lislaam waaye danañ indi buy buy nëroole boo xam ne bi danañ xam ne kooka du ku ñuy tànn ndax tànnut moom buñ ñëwee ci mbirum wut soxna soxna nga xam ne jigéen lay doon jigéeni nit jigéeni nit jigéen joo xam ne Adama ak Awa ko jóg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ngeen jógee di wuti soxna na ngeen ca jublu yéene fexe ba am ca njaboot goo xam ne ci lislaam la ñuy bokk bu ëllëgee su may limoo maak sama samay nawle su ngeen génnee rek ma siggi ma sag loolu jullit bu ne war na ko fexe tanakaxu taksuru fa inni uba ubaahi bikumul umama yawmal qiyaama waaye nee na bu leen gis ku ngeen dajal rek moo xam mu doon leen mu doon leen jàngal bu yàgg ba xëy xëy màggat ba xubbutu am doom yoo xam ne ñoo la mag fuuf mën nañ la duma yeew la nga takk seen ndey wala seen maam déedéet loolu amul avenir loolu yaakaar nekku ca amul yaakaar amul yaakaar dëgg mooy tur woowee kooku ku ma ne su ko wooye li ko tàmbalee tey amul yaakaar waaye daf ne na ngeen wut soxna soo xam ne jigéen ñi doomu aadama lay doon te toll ci am doom su ko defee bu ngeen ko ci sabablu yàlla mën na leen ko caa jox mu bokk ci mu yokk ci mu yokk ci xeet wi tazawwajul waduuda al waluuda fa inni mukaasirunul anbiyaa yawmal qiyaama kon boog ku tànnee wut noona amul yaakaar dong lay mën a tudd Seydina Aboubacar bi mu koy saraa daf ne atiu llaha fi ma amarakum min an nikaaxi yunjis lakum ma waadakum min al ginaa topp leen yàllaa ko yénentam ca fa mu joxañ ci tànnam su ngeen ko defee da ngeen dajeeg lam leen dikk waaye bokk yi ana adduna lu muy tànne aglabiya la ñuy wax bu dee téeméer dafa nekkoon ñu ne yëkkati leen seen loxo juróom fukk ak benn ñu yëkkati seen loxo ñoo tànn nañ ko juróom fukk ak benn ya doon yëkkati seen loxo nu ñu leen tànn ñoom ba ñu war a yëkkati ay loxo di tànn kenn na dëkk ci réew mi rek am këyitu réew mi këyit këyit rek ko fi boole bu amee këyit bi ñëpp yor dana ko sañ bu amee lu mat ñaar fukki at kepp te mus sa am leen teg yoon ak yami àndal kese waaye xamuñ ci jikkoom dara xamuñ ci xelam dara sax surtout am xelam te doof kenn du ko tànn loo maa ngi jégalu si baat boobu waaye noonu rek lañ ko mën a wooye doof kenn du ko tànn loo ginnaaw axla bi mooy tànn nag loolu njuumte la axla bi mooy téeméer fukki fukki nit yi juróom-benn tànn nañ waaye juróom-benn yooyu doon tànn ana nañ leen tànn ba ñu war a tànn ñoom am na si ñoo xam ne soo nee bu ngeen ma tànnee dinaa def lu lu mu gën a bone laa koy defee ñu tànn la ndax lu bon lañ bëgg ku ko def am na ñoo xam ne ku leen neen tànn leen nañ ko tànn moom su amee la muy wut dana xeex ak jullit yi jaare ko ci seen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu tànn ko ñooñu duñu ay tànneef bay tànn te aktharuhum yi ne ci alquran akthar annaas bu ca nit bëgg a doon nit ku set sotti amu ca akthar annaasi laa yaalamuun akthar annaasi laa yaaqiluun akthar annaasi laa yatafakkaruun aktharuhum laa yashkuruun kon mbooloo mee ko tànn nañ xool mbooloo ma ñoom nu ñu leen tànne bañ war a tànn suñ ko deful rek njuumte yi am mooy am waaye nag gannaaw yàlla moo garanti loo yonent bi kaaraanga gu mat sëkk nañ ko bàyyeeg yàlla te xam ne yenn yi day day day daf ñuy gestuloo daf ñuy gestuloo te kuy gestu aw yoonam tàmbali naa yeex yi tiital ñenn ñi nag jar na tiit ndax koo xam ne la nga yoroon ma ngay wàññi ko te duutu dolli ko mukk boo gisee koo xam ne ma ngay dolli ko te duutu wàññi ko mukk war nga tiit waaye soo dee nit nag danga war a dem ba ci moom nga ne ko lii nga yor lu mu bay doxe nii muy doxe ak xel ma dal mii nga àndal waaye taxaw fay naan kay demut fenn ba boobu oto fees ñu fëgg mu mu jóg beneen taxawaat nga ne ñee jëmuñu fenn bu yàggee dootoo amal koy waxal ñee jëmuñu fenn bu ko defee ñu delluwaat ndokkeelaat tayyib rajab wala rajab rajab tayyib Erdogan moom bu fi Sëriñ Tuubaa nekkoon dana ko neexal dana ko wongan dana ko ganale dana ko teral dana ko boole Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne mag ñu baax ñi ne woon ci réew mi yépp day ku ko fi fekkoon it da nga def la nga man ndax Yonent bi dong la ñuy nooyee te ba fe ba fi mu nekk nii bu nee jóg leen ndax yonent bi kenn du des loolu nag mat naa moytu ndax bokk yi fa in yakun minkum ashruna sabiruna yaglibu ba aaya ba àgg bu ngeen amee ñaar fukki nit ku nekk dana lot fukki nit muy té muy ñaar téeméeri nit su ngeen amee téeméeri ku nekk dana lot té dana lot fukki muy jën loolu tey la gën a bari nit julli tey lañ gën a bari tey lañ gën a xam lañ la doon wax lu mu doon ndax gis nañ leen wutale ak ñi ci des gis nañ leen wutale ak ñi ci des bokk yi koo xam ne amut yaakaar la tudd yor doole ñu ne yee doole joo xam ne xam na kañ lay jeex dir sa wax dara bis bu jeexee dina dugg foo xam ne du fa mën a génnati ndax lii tax du fa mën a génn xel mi du daal te xel mu daal mooy dundal doomu aadama yàlla yàlla dafa dëgg ak topp te saxal ñu ci suñuy pas-pas ba faw te yàlla nañu yàlla dimbale ba ñuy bañ a gestu ñi ciy wax ñëpp yàlla leen yàlla fay ñii ne dëkk ba mu dëkk nañ leen fa bàyyil seeni yëf dox nañu jéegu man raa minkum munkar munkar njëkkare benn gënu caa féete kaw tudd yonent bi te tegoo ci sallallahu alayhi wa sallam ku ne nag lañ leen fa bàyyi lañ yor ñoom seen waa kër gépp dox nga jéego bu am solo loolu mooy fal yughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisaanihi ñi nga xam ne dañ naan ñaawlu naa ko ku ko wax benn yoon rek bokk nga ci liggéey bi liggéey nga ci liggéey bu am solo waaye nag ku dem toog fi barab bi fa bi qalbi fa in lam yastati' fa bi qalbi wàccalu ay kaamil def salawaatu ala nabi def dog yu mën a def ñaan tuskare ak njàqare luy luy dox ba faw ak wéri di yaram nag wéri di yaram goo xam ne kenn du xam lu ko dal lu mu doon naka ko ñëpp ñaanal ndax bu ñu demee ci hamsiya matnu hamsiya bi Muhammad al Busiri def wax na kenn ku nekk ñu gën a bañ yenent bi kenn ku nekk la ko dal ñu jaana leen matt ñu ay góoma leen jàpp waaye ginnaaw góom ak jaan des ko mën a lugg fi mu ne nañ ko ne ko ñëpp ñaanal wér di goo xam ne lu kenn xam lu mu lu mu tudd rek bu ko defee mu di ko meeseer moo ay bokkam ak ña ko ci doon jàppale ba ñuy dee par kenn te duñ xam lu leen rey yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin